alhamdulillahi rabbil xalqi ciy dogalam li yàlla def ci mbindeefam loolu moo war a am dogal ba jiitu na cib jaamam lu jëkk mu am àtteem ba kenn mënu koo soppat ba teeka mu am nan gëm te jël mbir yi jébbal yàlla kon dunu juum te bañ di mer ak a tiit yàllaay ki def li fi am moo tax nu wommatu ci àtteem ci jël gi mu jël ma Mandione yàlla na féerook yërmandeek ngërëmam la jël ci yonent a xayrul xalxi kooka du déeg ku am bakken fii ci duniyaa yéefar ak ku di gëm ka jël si bàyyi rasulullahi du bàyyi bàyyub mbindeef muy beel ci dun bi du dem la yóbbu yaayi rasulullahi shaafiina du bàyyi kenn ndeyam sax fii di beel bañ a dem dunyaa dëdul kër ndekon kay yàlla buur bi du def xayrul wara ñëw ci dunyaa fii di doon ku jirim nan seet ci yonent ci tiis woo xam ne dal nanu kon danay woyof lu mu rëy rëy ndéem danoo ame ngëm yàlla ni roy leen rasulullahi roy gu rafet mboolem ñi gëm yàlla tey yaakaar ci bés ba nu jëm àddina yaa di kërug warukat ndekon di nga yor rasulullaay ba ñu gis jëmam ji ak kanamam koo xaritool ak mu jëm cim kan nga koy xala mu réere ak neen bu fekkul woon mu wóolu tegam jeyoon nga firawna tax ko bew di bàkku banaa mooy yàlla waaye mu jëm mooy alku mokku ko gëm namruus ma daa jéem a xeex ak yàlla yaa ko jeyoon ba tax na ko béel ca sijjiin yuux ga dootu wedam aadak samudak boroom ña yaag ña topp ca ñoom ñi ñépp yaa leen ca yoon ba tax ñu soobu jaxiim yonent yay ñi la xam moo tax ñu dëddu la jéeg looloo taxoon Mustapha daa xiif ba tey la mbubam maa yéem keroog ba rasulullahi naa la xoote dem ila yiin ciy àddina ka lëndëm mbooleem saxaaba yu mag yépp jaaxle ñaa nga la fañ ñaalu ngir ak tiit mu réy làmmiñ wafar far na wedam ñàbbo ci jaasi te naa ko amu fit ba di wax naa Mustapha dem na nii ma daldi jël bakkanam sadixa ñëw seet rasulullahi jël kanamam teg ca kanam ga di jooy te naa ka teey nga ba dem yaa tey ci sa dund ciy yaa tey ci dem ji nga dem yónneen bi wéetal nga dunyaa moo fu nuy xala jëm mu dem ca nit ñe ne leen xaqan lu ne xula am nde Mustapha dem na yàllaay buur bi dul masa dem mu daldi jàng wa ma muhammadun ba ca shaakirina yow omarun seetal sa xel ci li am bésub keroog dootu am aw tiis wu mel ni keroog ku nekk war na ko seet ci tiis wu dal ci këram inna lillahi yàlla moom jaam ñi ak lañu am inna ilayhi mindéefam du ko raw fa nu jëm nu ngiy dëgërlu di baaluy gëm di jéggalu ngir demuk majoon dafa tiisoon xol yi wóolu gëm bésub keroog ba ñu ne Seynaa Mandione a fi jóg ku xam ma xam xampalaasam tiit na xol ba gëlëm ñëlee di wax naa laayeen kay tas na ngir ga dunduk Seynaa Mandione rekk teewoon ku ne topp njiwam dépêche ya daw téléphone yeey riir di yëgle ku ney jooy bàyyi Mandione mu lewet maa làqu woy fu nu jëm mboolem fu diw tunda mbaa ab gox ci biir senegal ñépp a nga naa mbir mu rëy moo am ca nanu dem sëriñ sa teew na keroog ànd ak muxaddam ya ak cheikh yaak njaboot ga ku nekk ay jottalim gërëmam waa nguur gi yónnee waa nguur gi yónnee ci biir service yi naa nañu dem tey teewe xew-xew ba am yoof loolu moo war a am ministre ak député ak ku nekk taxaw di wax jaloore yi ma njoon mi réer mi ndéef yi ba dem ñëlee nga booloo di ñaan ndax xol yi ànd ci yiw ñëlee nga weddi xalaat ngir jaaxle naa fu nu jëm ñanot ca mbooloo ma seen xol tiit na ngir garagal juuyoo gu am waaye soobul yàlla loolu mu am alxaaji Ablaaye leeral xol ya ker ba mu ne wiw yoon ku fi mag la ni wormaal mu jiitu nu dem loolooy li bàyyi laay mi fentoon yoon wi digle te moo fi sax bu leen juum ba tax ngeen aw fudul fi nu jëm dibeer ja jëkk gannaaw faatug manjoon la ko leeral xol yépp bekk mbooloo may ñaan di gërëm ku nekk naa Abdoulaye yaa am teraanga te am ngor yàlla na buur laahu jox lam ndam ci foo mën a jëm ma wax fi tuuti ci taarixub manjoon mi nu doy te doy limaamook isaa ak yàlla buur bi nu gëm atum junneeg ñetti téeméer moo di mawliduhu ba at ma delsee la bàyyi laay feeñ mu daldi ko gëm limaamu ne ñetti ruu ñoo jëkk a gëm ba mu feeñee ruuxu ma Mandione moo leen ñetteel ci li am amoon na xaas ci nanguk ñaan loolu kay dafa wér jàngal jawaab ba sëriñ dun bind konte nga xam buur yàlla mas na kawan mbootum xilaafam mu xëy xibaar ko bàyyi laay munaaka loolu faw dana am te loolu yàlla da ko wan weer wi ak jant beeg bi déewi yépp mu ramaas leen def ci ab masetam mbooloo ma darka tanaakaa yaanu doy mu ne leen ñun ñépp nañ topp isaa moo di mag ji ma gëm te loolu feeñ na ba bàyyi lay nelawee te ñu nar rob maam libaas te isaa teewul ñu jot ndigalam manjoona daldi taxaw yor jaasi naa ku ci rob bàyyi lay te sëy naa isaa teewul dundam dina yam toppana isaa magam ñeent fukki at yu kamaal tamas la yox yoxi mbaa yoxat ca diir ba mu am fi sanati xasashin la jot xilaafa ganeel zasun la toll ci ay at booba nee mën a am jot nag xilaafaam ci ak mag loolu moo waraloon daawul faral di tukkee ak wër di seet fu mu jëm daawul wëreelu di laaj ay addiyaa alal ku doylu woon la du tiisal kenn ngir alalam moo sell moo ame woon ngor ak teraanga te moo am yërmandeeg mbaax te laa biir yii meloom la yu am boo ko masaa gis mu naa leen gaay ngalla bu leen sàggan di fàtte li leen fi taxa ñëw di ko moo amee woon muñ te bañ ne baloo ko defal mu jëm la ko fay ngir ak daw ax bés ba nu jëm am ngaañ ci baatin ba mel ni gar te kaw galawet ba mel ni am xar ma joon yow yaanu la xuba dem kiiraay yu tal yi nga làmboo tax mbindeef yi xamul say mbir ndekoon képp kuy nit sàkku lool sa ngërëm ñaar fukk ak ñaar ci ay at moom la wutu isaa shamsul huda suux na duniya delluwaat ci lëndëm limal ma shamsul huda moo dim atam cala dem ma njoona doon janta moom leeral na réew mi ba dem weeru tabaski la tàggoo neel kësun cala dem weer waak ma njoon àndandoo xëy làqu ñépp gëlëm bésub talaata ja isaa ruuxullaahi jullee bàyyi laay la isaa jullee sëy naa ma njoon mi ko xam doom moo di meññatu baayam loolu moo du li am doom moo di meññatu baayam loolu moo di li am ku fonk baay del teral doom ndax nga jot ngërëmam ku rawle woon ci ma njoon jàppal xaliifa bi Seydina Isa kon di ngay jot lu rëccoon na ba dem am nay ngëneel ak i may loolu feeñ na ca ziyaarub yoof ba jëkk ca moom cey booba bés la ca am jullit ñi ak taalibeek bokkam yi ñépp a taxaw ku nekk seede na wiiw yoon tey la lii masa am alaaji Ablaay jël discours di sant ku teew ak it jotal leen ziyaar maanaa yu rëy am ndax moo di njiital dawaa ir kuréel yi te mooy loxob xalifa bi neel xàqante moo di rakkam Seydina Isaa yaatalal sa mbootu bul ami bañ bul jëlal kenn parti bootal ñépp ngir fa nu jëm ku fonk yàlla bu doon ku ñàkk it na la saf ku bu doon millionnaire it daw ka mook la mu am mujjug ku beew moo di alkook waa ju wéeru ca moom jàngal ma wal fajri daa xam lii ba dootu ëlëm xam naa ni sax say jikkooy doyloo borom bi la moom man kay damay fàttaleek fekk waa waane ndaxte mu yam jàppal say rakk te bul may yàqkat bi mu aw ci seen diggante na nanuy xam say nameel yi nga am yàlla na la buur yàlla dooleel kàttanal la ci yenn bu rëy bu diis bi nga xëy yor jox la am ndimbalam te njaboot gi ci ak njub nee xaboot bañ a juuyoo ak ndigal yi fi bàyyi laay bàyyi woon ci këram nañ boole xol yi te jëf li mu wax ndax moom la buur yàlla doyloo jox ko ay ndigalam mu ñëw te naa aji boo yàllaa ma yónni bu leen di ngat na ngeen gëm te sellal ngeen dajeek ngërëmam maay mahdiyul muntazar maay ndaw li yàlla digoon mujjug jamaana ki neex muur kooku mooy ki gëm la ca gaañ ka jiitoon daa di ci moom ñi gëm ka ñiy weddi ñii laam-laame toog baña dem buur yàlla boole ko ak ay mujizaat yu di rëy jàngal ma bushraal muhibbiin kon nga nangu wa xam njindaana ëf nit mu dib neew dootu yëg lu di xew ba saa yu uppee mbalaanam waaj a dekki ndaxam njiin daana ëf nit mu dib néew dootu xam lu di xew basaayu uppee mbalaanam waaja dekki ndaxam mas naa géej ba dootul yàq kër ga mu daa baawante lii biir na mboolem weddi ak ñëkk gëm keroog la bàyyi lay jënoog géej naa ko jaam nga ni man bul jéggi rëddëw ndawal buur yàlla dikk ndogalam ba géej ga feesee ba jub rëddaam wa daal di taxaw keroog ku teew na sàbbal yàlla dolli ngëmam way wuute yaa gën soow ci mahdi ki isaa ndax ñaari jëmm la am déet ñaanganaa duñu am ñii naa xalifa bani abbas ba moo di limaamul mahdiyu ñii ne ñoom ibnul xasan lañu gëm ibnul xasan askari ma suux ca gaaw ba la chia gëm ni moo di limaamul mahdi mi war a am lii mat na xamsatu aqwaalin yu wuute ci feeñuk mahdi yoo ki isa seetal sharaaya nga xam yéem naa ci wax yooyu waa ji wax ni mahdi yu ak isa amul moom xanaa jàngul xadis yi ñu xam yëral saxiixul buxaari yi daa ca gis mu di wax wàccuk isaa fii ci duniya loolu moo di li am yonent ne saa yu isaay ñëw du war ci gëléem sharabana kon sa xaarak wota yaa diw fasam mahdi yu moom tirmiseek xaakim ak tabaraani ibnu maaja abu daawda wax nag dikkam ak mawsili mooy abu yaala ku nekk di wax xadis yu ñëw ci dikkuk mahdi yu ne mën am yëral mbindum ibnu xaldun konte lii dina leer bul deeti réylu ba jom loo waaju di xam alhamdulillahi iskaanal imaamu lana nuy sant yàlla ci ay xéewal yu rëy yi nu am nun nit ku ñuul war nanoo santaat di sant di sant yàlla ngir may nanuy jakleem defal nanu ndam kenn xeebatul nit ku ñuul waxam ji tey ñu ngi koy bind ak a jàng di yéem solok xelam gi mu am ma jéem a teeral samay wax waaye jeexul xanaa ma noppaloondi di ñaan buur yàlla am dimbalam wasalli yaa rabbana ci Mustapha Karaman jullil ci xayril wara ak saaba yaag ña ko